lépp loo def rek boo bàyyi xel danga xam ne lii xéewal la ko jóge suñu borom war nga caa sant sa borom loolu boo ko dëkkee sa xol ne su tuut dangay ngay sopp yàlla da koy bëgg koo xam ne toujours moo lay moo lay moo lay da nga koy bëgg boo ko bëggee nag dugg nga ci àjjana ji gaa wax bëgg yàlla bëgg mooy mooy mbir mi bëgg mooy mbir mi gaa yi bëgg yàlla da leen defal tawfeex sax ñu mën a nekkaat ci nit ñi waaye lu ko mooy dañuy mujj dégg nga am dootuñu mën a nekk ci nit ñi bëgg moo tax ñu ci bari dañuy bari ay nattu ndax dañuy mën a nekk ci jàmm bu pare teg seen bopp natt yoo xam ni am na koo xam ne ci ñoom day wax ni man lam yaduq zulmal xabibi ka zalmihi xulwan faqad jahila al mahabbata wa daa nee na bëgg dëgg boo nekkul ci coona ba pare sa sa ki nga bëgg teg lay coono mu neex la boole ci xamal ne yow da ngay wax rek waaye bëgg koo dëgg rek daa am daa am ci gaa yu baax yi koo xam ne moom dara wax ne lii la lazzatun bu ma saa nekk ci coono adduna day bëgg mu nekk ci coono jafe-jafe tàll sa borom loolu dara ko ci adduna di ko jàmbat sa say say soxla sëñ Tuubaa bi gis nga bayit boobu mu daa wax ida massani durrun aw ixtajtu ad'uhu duaan xafiyan baadama laylu qad daja bu ma dara jotee wala ma am jenn aajo dama koy woo ad'uhu duaan xafiyan baadama lay qad daja dañu bàyyi ba njël ñu jóg jàkkaarloo seen borom di ko wax lii lépp yaa ma ko teg waay dara naqariwu ma ci ndax xam naa ci yow la jóge moo tax mu neex ma loolu la ñuy waxee moom dañu def munaajaat moo tax waaju kooku mooy wax day wax ne lii ladatun fii dillati wa xuduuci wa uhibbu bayna yadayka safka dumuuci li ma gën a neex ci àdduna mooy mu toog sa kanam di jooy yow suñu borom tabaaraka wa taala ay maani yoo xam ne yow mi koy diglu da xam ne lii lu neex la kon yàlla na ci yàlla mosal sëñ bi nag tegtal nañu yoon wi mooy tudd yàlla ci noonu mu ko fàttaliku lañ jublu dégg mu teg ci weneen bayit weneen bayit woo xam ni xëy na duñ damay gaawal ñaari bayit yi ci topp beneen bayit bi mooy wa xayru zaadihi tuqaa wal faqru liman lahu qablu wa baadul amru dafa wax ne ab murit ab taalibe bi nga xam dafa jëm suñu boroom li nga xam ne moo nekk war a nekk yóbbaala mooy ragal yàlla ragal yàlla li yàlla farataal ci jaam ñi ñëpp li tax ñu farataal ko boo seetee raaya ba fa mu mujj mooy ak ragal yàlla nga am ko ak ragal yàlla mooy lépp gis nga kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum li tax ñu farataal ci yéen ja ak koor mooy lan laallakum tattaqun ngeen ragal yàlla mboolem julli yeeg yooyu yëpp xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha mboolem asaka gis nga yooyu yëpp ba ci ci alxuraan bu ñu ko toppoon li li li tax fa mu mujj nit ki mooy da koy doo koy jox ak ak ragal yàlla gis nga sunu borom sax àgg na ci wax ne waliyu du kenn ku may ko ragal yàlla in awliyaahu illa almuttaquun àgg na ci wax ne ba mu wax ne ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun lahum lahumul busra fi lxayaati dunia wa fi laaxira waliyu sunu borom yi tabaaraka wa taala mooy ñi nga xam ne ak ragal yàlla dëgg dëgg lañ am nga xam ne suñ borom rek lañuy moytu ci lépp suñ borom rek lañ ragal ragaluñ leen ragaluñ ñàkk bëgguñu lenn it àjjana sax taxu leen di jaamu yàlla leen tax di jaamu yàlla mooy yuriduuna laa mooy jëmmi suñ borom ji rek moo leen ñor ndax day seen borom digal leen ñu war a def seetuñ ci leneen dekkuñ ci leneen sa yàlla kenn du ko jaamu jaamu par intérêt kenn du ko jaamu pour mu dugal la àjjana kese loolu eh, maanaam li ñu asirkul xaf yi mën na cee mën na cee dugg yàlla moo nu xemem lu àjjana dañ ko ko war a ñaan sax ndax ndax moo nu wax ne lii maa leen ko fi dencal waaye waruñu ko jaam pour rek ndax day mel ne tey bu fekkoon xëy na suba ne àjjana defatuma ko bàyyi naa ko dootoo ti te yow ab jaam nga yàlla la bind dañ ko war a jaam loolu mooy li man la wa xayru zaadi yi tuqaa wal faqru faqru googu mooy al faqru ilallah suñu borom dafa wax ne yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ilallah wallahu huwa alganiyu alhamid mooy ja mooy nit ñi ay jaam lañ yoo xam dañu aajowoo seen borom ci lépp lañ ko aajowoo fi ne damay wax rek ne doomu aadama bu seetloo jëmmi boom ak li muy def lépp day xam ne moom daa am kuy jëf ci moom. fi ne yow wax nii may wax nii da ngay jëkkee ki damay damay bëgg a wax ne damay bëgg a wax benn baat yëg ne maa ngi koy wax waaye wóor na ma defuma wax ji boo ko seetloo di nga ko seetlu nelaw mi ma waxoon léegi da ngay tëdd rek nii xa jekki jékki nga gis ne nelaw nga. jékki-jékki gis ne yeewu nga waaye mu wër la indiwoo ko delloo woo ko dox nii da gis ne dox ak yëngal sa cër yi da gis ne bëgg nga ko def yaa ngi koy def waaye du cee génn yow yaa programmé def gi yëpp yëpp ba ci lekk gis nga maanaam bëñ yeeg yooyu ni muy doxee muy sàqar mi lu yéemoo ngi noonu imaamul Xasaali yi gis mi ngi koy mi ngi koy jën ci ci ci téere kon da gis ne yow am na kuy jëf ci yow fi nay gis ne xëy su xëy da gis ne yow judd nga ne nga gis ne mag nga ne nga gis xaw nga nekk waxambaane nekk nga ma màggat am nga soxna kii ne xëy suba nga faatu am na luy jëf ci yow di la di la yóbbu étape par étape kooku nag mooy suñu borom tabaaraka wa taala moo tax yenn am na borom xam-xam boo xam da koy ne doomu mi ngi mel ne télévision bii da lay wóor image yaa ngi koy gis ak muy kii waaye nekkul ci biir télé am fu jógee di ñëw ci moom lépp nag li nekk ci yow ci ay kàttan luy nuru kàttan lépp wala doole xamal ne noonu la demee dañ la koy yónnee muy suñu borom la koy yónnee kon yow ku aajowoo nga donte yaa ngi yor adduna ak li ci biiram xamal ne yaa gën a aajowoo tey parce que maanaam lum ci téye rek doo dootu dem gis nga fii kuy wax ba mu yàgg mëntuta wax gis nga kuy dox ba mu yàgg mëntuta dox gis nga ku yor ku yor xel mu bari di bind téere xëy suba xamatu tus naag Euh, muy dem rek misaal yu bare bare man nañ ko ci jël kon nañu xam ne yow yàlla moo yor sa lépp loolu mooy suñu bo yoon su suñ Cheikh Ahmadou Bamba nag dafa wax ne bu bëggee dem suñu borom yóbbal bi nga war a yóbbaloo mooy ak ñàkk suñu borom toujours loo mën a yor bul ko gis xamal dee ko delloo ci moom te xam ne moo la ko may te nga dig aajowoo di ko ñaanaat itam muy dolli loolu la wax li man nga boole koo ak ragal yàlla ragal yàlla googu nag loolu boo koy def boole kook tudd yàlla gé ma njëkkoon bu yàggee da am ak ragal yàlla ragal yàlla nag boo ko defee yu bari ci la ko sun ci la ko sun borom di xewale gis nga li mu wax ci aaya bi alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna am lahumul busra fil xayaati dunya wa fil axira dama ay busra yaat ay mbégal ay bég ay bégle yoo xam dañ la koy bégal bu fekkee nit ki ragal na yàlla nekk bokk ci gaa yàlla yi am bégle yu bare bari yoo xam dañ ko koy bégal ci àdduna bégal yooyu nag bokk na ca nga xam lu baree bari te jànguloo ko li ñuy wax alfatax wattaqullaha wa yuallimukumullah am na feneen boo xam ne jaam boo jaamam boo xam ne wax ne aatinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunaa ilman dañu am yërmande ñoom gaa yi am yërmande ju bari gis nga Seex Ahmadu Bamba yittem jëpp moo doon gindi nit teg leen ci yoonu yàlla am na xisa bu daw yaram bi nga xam ne jógee na ci géej gi ñëw xam nga juróom benn weer la def ci réew mi ñuy boot ko Murtani ba muy dem Murtani lañ ko tuumaal mooy yéen ni ngeen ko xamee ñëpp dañoo wax ne moom day dajale ay ngànnaay ndax dañoo gisoon boobu ay sëf yu jógee ci yu romb agent secret yi ñu jàpp ne lii liim sa fekk ba ay bagage la doon dañ doon defaraat kër gi ci Daaru Manaan ñu jàpp ne lool nag ay ngànnaay la sëf guddi la da leen romb guddi ñoom agent secret ñu bind ay rapport tubaab yi daal ne léegi nañ nañ dem visite kër ga kër gi bi ñëwee ki ko doon visite ñëpp xam nañ ko fii bi gis nga sëñ bi sax sëñ bi ndeysaan maanaam moom ku ni kawee ci wàllu suñu borom kenn mësu ko gis gis nga moom buñ masaa wisit ba noppi gis nga xeej yi am na fii ci Darou Khoudoss goo xam ne gis nga xeej yi ñoom buñ masaa ñëw borom Darou Mouhty mi da nettali ne waa ji doon wisit kër gi ci Darou moom jarul ci bunt bi permis fi njëkk a rek la jël jeesam law wi law wi ñaari per yi jàll duñ jaar ci bunt ñoom sëñ mag bi ci njaareem gis nga dañ daa am na ci commande boo xam da ko sonal daa daa bàyyi ba mu tëju mu ñëw ubbi bunt yi fekk ko fa mu ne xool ba xam ci lu mu ne waaye boobu tëll bi dañ daa mel sëñ bi ne bu ko kenn def dara nañ ko bàyyi rek xisa bi may wax gis nga bu ñu ko mësaa def bu ñëwee jaxase kër gi loolu nañu gëstu ko xool dugg ci bagage sëñ bi ak ni mu selle ak ni mu bëggee kii seen dàll yi ñu ñëw fu nañ jaxase fa dóori xeej sëñ bi moom li mu koy faje mooy yàlla lay waxal di ko wax ne ko najjaytani min alladina thallasu wa fi diyaari wa mataa'i baxasu ne ko yow sunu borom yow yaay ki ma musal ci gaa yi nga xam ne ñoom dañuy bokkaale yàlla di wax ñett la ak ñeent te ñëw sama kër gi sama bagage yi ak sama kër yëpp ñu ci lëñ bët ka xool ak fu ne ñu du fa dugg najaytani min alladina thallathu wa fi yi wa duyuuri baxatu loolu loole ko daa faje waaye xisa boobu li ma li ma taxoon may jóg mooy yërmande sëñ bi laa bëgg indi rek gis nga bi ñuy ñëw ci eh, boobu mu maanaam bi ñëw ak li ñu fi doon def lépp mu di mer nañ waaye si bi di wax bu kenn def dara am na benn xasida gumbind gu gàtt jox ko benn naar ne ko diirub ñu fi ne dee ko yëkkati di ko jàng xasida gi mooy arrahmaanu rahim la ko tënke mooy rabbi bi maa yasraxul adhaana qad faja gis nga ci xasida gi lim ci ñaanal da wax ne yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara yaa hadiyan rada yàlla na nga yërëm gaa yi yëpp ba ci gaa yi may seet na nga leen yërëm foofu yërmaane fi la mën a yem gis nga liñ ko def moom sëñ bi mooy dundam gépp dañ ko këll-këlee gis nga sëñ bi fi sëñ Mamadou Anta jël sa li diir su néew tubaab bi jël ko ko ci géej gi juróom at mu jóge ci géej gi ñëw 6 mois la def fii juróom-benn weer la def fii ñu yóbbu ko Murtani ñeenti at foofu mu dem naaree ñu bari gëm ko réew ma gëm ko ñeenti at yi ba mu mate ñu ni ñu gis ne réew mi dañ ko gëm ñu jëlee ko yóbbu ko Thiène Thiène noonu waa Daaru xam nañ ko ba léegi si boo fa dem da am ay jafe-jafe juróom juróomi at lañ ko fa téye foofu itam nit ñi foofu ba fa nekkee dañ ko limal ay limum nit yu néew lañ ko may mu gis ko muy ñu koon ku gis ko bi seet yaakaar naa ñetti nit xaw ma xaw ma ma ñeent waaye bañ gisee nit ñi itam ñi ngi jóge fii di fa dem ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci eh, dégg nga njaareem def ko résidence sur waaye fukki at juróom yoo xam ne Touba sax muy ñëkkoon mu dem fa maa ngi lay wax léegi na la diiru bu la mu nekk njaareem tam ci njëlbeen gi dañ daa def bu seet dañ koy woo ay yoon muy jóge këram di dem ca fa gouverneur gis nga buqaal mu baaraka fi sëñ bi dëkk ak fa eh, gouverneur gouvernance ba ne sore na waaye dañ ko daa kii muy dem nit ñi di ko kar ci yoon coono boobu borom daal moo la ñu wax ne moo fa mas dem benn bis kër sëñ Balla Coro ñu nettali ko ne ko daal sëñ bi daal ni ko gaa yi sonale bi seet ñu wokk mu daal di sol daalam ne dem seeti gouverneur gis góoróob ko daal li ñu bëgg mu dakk daal mooy sëñ bii ngeen di woo magum jëmm toll nii yu atamit nii mu toll rek war ngeen ko wormaal ci bàggante bi ngeen ko def loo ngeen bàyyiloo ngeen bàyyi ko keroog la ko gouverneur nangu lool ne léegi nañ ko bàyyi këram suñ ko soxlaa fekki ko te gis nga diiru mu nekk njaareem mayuñu ko mu ñëw Touba te sëñ bi daal wax ne Touba moom mooy dëkk bi ko gënal ci dëkk yi lu ne wax na ko ci gis nga bi mu nekkee ca tukki ba bayit yu daw yaram la ci daax ilaahi ila tuuba ila daari salaami wa tuuba yàlla sunu borom li mooy delloo ma daaru salaam ak tuuba wax na ne bi mu bi koy jugalee ceen di dem jaarim wax na ne moom ci boom net li na ginnaaw bi ne wax na ci xalam ne daal ndax xëy na lay ma jaar sama dëkk ba gisaat ko waaye dañ ko teggil dëkk bi jaru jaru fi gis nga bi mu demee bi mu nekkee njëriñ am na boo xam ne ñëw na ba xur mbàkke gi waaye dañ ko dëpp tubaab bi dañ ko dëpp nanguñ mu ñëw fi te xam nga Touba moom gis nga moom rek moo doon moo moo doon ay waxam waaye mooy ñu ko mu nekk ndax dañ ko doon dañ ko doon dañoo dañ ko doon loolu lépp nag ñu def ko sëñ bi te lu lu def te te li mu jëflante ak ñoom mooy afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafaahum li ma sarmadan lastu adfa'u jéggal naa leen te it afatu ma saf yu kalkal yi xol bu set laa ko defee def sama xol dara ñàkk-ñàkk ne ko ci kon yërmande gaa yi yàlla yi loolu ci liñ leen xam la bokk yërmande ju bari leen atinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilman al ilmu ladunni itam mas na ko misaal sëñ bi lu bare bari sëñ bi ci moom wax ne ne am sëñ Maxtaar Koso doomi mu borom daal mati wax na ma ni ku ma wóolu ay mbiram la sëñ bi daana wax ne sëñ sëñ bi ci moom daana wax ne daana jëkkee ko wax ne ittaxadanil biidaanu kanzan wa taxadani suudaanu rabban wa haahuna ulumun law raaytu man yaxmiluha loolu sëñ bi dana wax dana xam ne man nit ñi ñuul ñu dañ ma def yàlla duñ ma laaj dara nit ñu weex ñi am koom lañ ma def waaye maa ngi ki xam-xam yoo xam ne bu ma gisoon ku ko yor dina ba ba mu mosal ko ci waaw yooyu mas na ci xisa yu bëri bëri xam naa loolu it aw yoon kon mooy nit ki nga xam ne mu bëgg dem ci yàlla faw mu lam faw mu jéem a góorgóorlu ba ak ragalam yàlla sellal yàlla lépp lu muy def na yàlla tax te ak ñàkk mooy ubudiya kooku mënta ñàkk sëñ Tuubaa turam yu gën a mag bu ko gën a neex ci turam yi buy buy signé li muy wax lan la wax abdullahi wa xadimu rasulihi alayhi salaatu wasalaam jaamu bi yàlla laa wutul weneen weneen ki sëñ Tuubaa ku ku la man damay wax ne am na am na bayit yoo xam ne fii kenn ñu ma koo firil eh, yenn murid yi ndax boo kee ñu ñu dóor la te sëñ Tuubaa ko wax te sëñ Tuubaa dafa mës a yëkkati ci boppam dara laa bëgg a wax gis nga ci ci ci xasida mat la foo seeni loolu lay wax ku xam sëñ Tuubaa xam ne du tàyyalut mukk doon dawut lekk dawut nelaw gis nga nelaw yi dañuy wax ne moom du ko xaar fen te du mat ni ko waxee du mat 15 minutes te gis nga ci bayit yi loolu lay wax inni kasulun naimun akulu inni xumurun taibun mulimu ay bayit yoo xam ne kenn mënu ko jàng dafa dafa daw yaram mi nga kon loolu lu mat a jéem a nag buñ ko mën su ko roy ba ba dab ko kooku moom kenn waxu ko waaye jéem a la mos ci moom lu bon bon nga roy ko nga jël sa mbir yëpp wekk ko suñu borom te xam ne mooy borom mbir yi te doxe ak ñàkk loo yor itam bul ko gis xamal ne mayu sa bopp dara. ñetteel bi mooy amma silaaxuhu faqul sayfu wara ab ab ab taalibe dëgg-dëgg li war a nekk mooy ak maanaam ngànnaayul di nga am sàmm sàmm lu jafe la sàmm mooy lépp yonte bi wax na ci lu bari bari saxaaba yi loolu lañ làmba woon maa ngi nag. jégglu ñëpp di di di di di ñaan suñu boroom di nga am sëñ eh, Mouhamadou Lamine ak gaa yi mu yàlla defal leen bañ am nag télé bu mag ak i rajo di di di àggale message su sëñ bi ndax message su sëñ bi yoonu sëñ bi ñi ko war a tasaare mooy ñi nga xam ne xam nañ bu baax yoon wi xam nañ bu baax waxi sëñ bi dugg ci waxam tasaare ko am Ahmadou Mbacké rek yor feeb teleem lu ko neex génne. am yoo xam ne kenn waru koo ke maanaam maanaam yoo xam ne dafa dafa juyoo sax ak waxi sëñ bi ki nga xam ne xam na mën hëjee sëñ bi doxinu sëñ méthode sëñ bi ci lépp jàng waxi sëñ bi xam ko baax mu convaincre ko boole ko mu dib taalibe ba ñu doon sama classe nga xam tey man ngaa doon murit ci askan ni waaye yow sa xam-xam lépp xam-xami yeneen i madahib laak yeneen yi ngir ak yeneen yi mbir nga xam ne yow murit gi moom xamoo ko delluwaay yi xamoo ko xamoo lan la ne ak lan la ñeneen ne liñ nekk xamu mënu ko layal yooyu yëpp dañ ko fa war a jële yi sa classe gi nga xam am nañ ci yéen yaakaar sëñ Mouhamadou Lamine yal na yàlla bareel seen kem te yàlla yàlla dëgëral leen yàlla jox leen kattan sëñ Touba nun sëñ Touba li war a def lépp def nañ ko nun noo des li mu war a ñaan lépp li mu war a def lépp def na ko dox na kem kattanam lépp waxal nañ ci amul problème ci àdduna boo xam ne sëñ Touba réglé wu ko nun noo des rek gëstuwun mbiram toog fi rek di noos ak a wax mu sama classe gi la jublu nag waaye sëñ moom li mu war a def def na ko ah, ci wàll yëpp lépp noose na ko benn poñ bu mu bàyyi amut loolu xam naa sëñ bi dana ci gën a jëm ndax ginnaaw mi ngi ci gëstu poñ bu ne dana ci dugg bu baax a baax a baax kon daal yàlla na yàlla defal feex maa ngi jégalu bu baax ah, donga kenn waru ko indi di ko wax loo ci mel ni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu